mbokk internet bi ñu ngi euh, internet yu Dakarnet ñu ngi fii nga xamante ni euh, moom mooy yëmbal ñu ngi fii ci marin bi ci kër Ba Cheikh ndax Ousmane Sonko waxoon na ko si euh, point de presse bi mu doon def ne woon na dina seeti ñi nga xamante ni dañu ci génn àdduna ci mbir mi. alors jamono ji ñu toll ñu ngi fii nii Ousmane Sonko mi ngi ci biir kër gi di saafonteeg waa kër gi di leen jaale waaye nag mbir mi xaw na yéeme li tax mu yéeme ndax mbooloo mi bari na mais au delà de mbooloo mi bari na. Ousmane Sonko euh, protocole bi nanguñ euh, presse bi dugg si biir daal di filmer li nga xamante ni moom euh, lay waxtaan ak ki nga xamante ni mooy papaam Abdou dafa mel ni loolu lañ nemmeeku muy lu raar ci homme politique. waaw ñëw fii nanguñ dugg. waaw si loolu moom day doon waar parce que dañoo woon bàyyi presse bi dugg parce que comme ni ko bëggoon defee rek jaaxawoon naa moom lañ ko woon defee mais dañuy def lu dugg rek incha allah taxaw fii xaar ko bu génnee peut-être dina am mooy ñu war a jox. mais gis ngeen tamit également mbooloo mi xaw na xaw xaw na bari euh, gis nañ tamit ci Ousmane Sonko tamit bon en fait man dama koy ñaawlu en tant que journaliste ah, dama koy ñaawlu ndax jàpp naa ni euh, mënoon nañ rek juste bàyyi ñu filmer euh, ndax xam ni jaale la waxtaan mënoon nañ ko bàyyi rek comme ni ko bëggaan filmer mais naka nga naka nga gisee carrément mbir mi quoi. si doon na waar parce que xam nga rek Ousmane Sonko comme ni nga ko waxee rek moo moo moo ànd affaire bi xam nga kaar bi ñu ko jàppee moo tax tey fu mu génn rek nit ñi dañuy bari fees comprendre léegi xam naa peut-être xam naa ni daa am lu tax rek lu nekk ci biir moo tax bëggul gën nangu gars yi du kii mais peut bu génnee rek incha allah nañ kii daal. dëgg la Abdou xam naa euh, dëgg la xëy na nag euh, mën nañ comprendre ci benn côté xëy na jaxasoo bi lay bañ ak euh, mbumbaay beeg ci biir biir ndax presse bi lañ fi xaw a bari waa mi ngi noonu xale yaa ngi noonu. sëñ bi ñu yaa ngi jàmm. maa ngi sant bu. yow nan nga gisee ñëw Ousmane Sonko. waaw xanaa di rafetlu si ñoom lu bari parce que lii dafa neex quoi image bu naaj lañ def nii di ko sant di ko gërëm parce que ñun xalaatuñu woon lii sax booy bi dem na mais jooyatuñ ko parce que su neexoon tam mu ne maa déclenché guerre mais du ñëw déclenché la cadence mais tey yëg bu mu am ba ñëw dañ koy ñaanal yàlla mu dem ba nekk président war na Serigne Touba parce que lii dafa neex quoi si yaa te tey jii dafa bàyyi lu bari ñëw teew te tey booy dee nañ moom jekk ak teraanga ñëw président sax deful lii war na Serigne Touba Mbacke soo gisee jeunes yi di sonn si jëmm ji dafa am lu tax quoi barke alxuraani karim. waaw maa lay fay. nga gisee ñëw Ousmane Sonko fii si koñ Sonko bi dañ koy rafetlu rek parce que fii lañ dëkk Daaru Salaam 4 benn braak mais lii yëpp nag Macky Sall moo ko waral na bàyyi calcul politique yi muy def def na ko 3 3 euh, mars 2013 Karim Wade 3 mars 2017 mu def ko xalifa Sall 3 mars 2021 Ousmane Sonko. moom gënul nekk nit ñi. nga bëgg a wax chiffre 3 bi yow chiffre si bëgg a wax. mais chiffre 3 bi ay mbiram la xëy na moom moo ko xam mais na bàyyi li muy def parce que réew mi moomu ko dafa jàng fi am entrée en sixième am fi BFM bac a ah, mais yeneen sénégal sénégalais aussi noonu lañ ko amee na leen bàyyi ñu politique na gérer au pouvoir ñu ñu ne ñuy opposé ñu opposé mais bu nekk bu def defoon dilam bi booy Cheikh Diop du dee ah mais affaire yooyu ñuy def toog palais di régler affaire yooyu xam ne boo defee nii dina baax te li gën Sénégal mooy. ma ah, man à la laa jógee def naa fi un an mais réew mi doxul dafa metti nit ñi dañoo sonn dafa metti nañ bàyyi sénégalais yi ñuy damyee di def seen affaire yooyu dafa yomb yooyu kenn door ko fi nangu nañ bàyyi affaire yooyu respecté sénégalais yi moomuñu réew mi mais moomuñu réew mi ah Ousmane Sonko moomu réew mi Macky Sall moomu réew mi. waaw ah, maa ngi lay fay na nga def sëñ bi xanaa kontaan ci rek kontaan naa bu baax baax. Sonko na tubaar fa kàlla ñoo ngi koy ñaanal yàlla na doon njiglaayam tubaar fa kàlla suñu doom ji ñu ñàkk dara naqareetuñu kenn ku nekk ñëw nga fi ñu jaale waaye ñun waa yëmbal pare nañ pour teeru Sonko na ñëw fii ba affaire yi jàllee ñu waxanteeg moom lu baax defanteeg moom lu baax ndax lii ndayam ak ko liggéeyal kontaan nañ tubaar fakkaal dañoo ne ci dëj sax waaye dañoo kon dañoo mujj kontaan ñun jigéen nag ñun takku nañ ba dëgër pour ànd ak Sonko ñun pare nañ pour ànd ak Sonko ndax li ñu métti bari lépp kenn mënu koo wax li ñu manqué dafa bari amuñu dara ñun daal pare nañ pour ànd Sonko bu yi passé na dañoo bëgg mu ñëw fi seet suñu ñu waxtaan ak moom wasalaam kontaan naa jërëjëf. yaa booy ñu ngi leen di nuyu waaw ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay bu baax. nan la gisee tey Ousmane Sonko ñëw fii di seet si lu ah, lu xewoon fii ci jamono ji taay. Ah, macha allah ñëw ñëw sonk tey ñun koñ bi yëpp kontaan nañ si macha allah di ko rafetlu bu baax a baax. boole nañu lu ñu neexoon nag lu ñu naqari yëpp tey mel na ni am nañ lu ñu neex tey ndaxte wax dëgg yàlla lii metti na mais gis na ne daal ñëpp bokk nañ kook ñun macha allah kontaan nañ ci torop wax dëgg. ñu ne yow a wax tey ah, askan bi daal li ma leen di wax tey ah ñun taxaw nañu yéen bi ngeen di dugg fii gis ngeen coono bi ngeen daj xam ngeen ne ñun marin moom dañoo sonn sonn nañu amuñu tali amuñu yoon bu baax amuñu dara ta fii ñi fi nekk ñu am jom lañ jigéen ñi am nañ jom xale yi am nañ jom liggéey rek lañ bëgg ku leen jàppale rek ñu liggéey li mag ñi amee jom xale yi sax ñoo leen gën a am jom mais nag amuñu possibilité liggéey képp ku fi ñëw nag te jàppale ñu pour ñu liggéey bu soobee yàlla ñu jàppale alors mi ngi noonu Ousmane Sonko di di jege si mi ngi noonu di ñëw euh, gis ngeen ni mu ngi noonu ci euh, bunt bi di waaj a génn gis ngeen protocole bi moo nekk noonu di ñëw ñi nga xamante ni ñoom la àndal famille bi ñooy génn par ndànk ndànk ngi noonu gis ngeen sécurité bi ngi noonu di ñu euh, buux naan ñu nag ñu may. alors mi ngi noonu fii euh, Kër Baye Cheikh di euh, xale bi nga xamante ni moo am ci lu toll 17 ans ñu daal di koy euh, boomoon si bésu manifestation yi ay bés yi la passé alors Ousmane Sonko ñëwoon fii di jaale famille bi di jaale njaboot gi gis ngeen ni jigéen ñaa ngi noonu jigéen Pastef yaa ngi noonu génn ndànk par benn benn alors ñun ñu ngi ci ci bunt bi di xaar Ousmane Sonko ndax comme niñ leen ko waxee sànq dañu bañoon presse bi dugg si biir kër gi donc voilà ñun dañu mujj taxaw nii rek di xaar mu ñëw. bu ñu mënee ko waxloo sax ñaari baat ñu waxloo ko bu mënul tamit bon ngeen am li nga xamante ni moom lañ fiy jëlee. Toumani moo nekk si caméra bi Ousin moo nekk ci euh, euh, kàddu gi ànd ak sama frère Abdou euh, mi ngi noonu. alors mi ngi noonu gis ngeen euh, gis ngeen sécurité bi mu ngi noonu euh, sécurité bi mi ngi noonu taxaw ci bunt bi di xaar def maskam def kabam ah, kii moom bokkoon na si euh, ñi xamante ni waa GIGN ñoom ñoom lañ bokkoon na si ñoom waaye ginnaaw gi dañ leen bàyyi. waaw papa jaa ngi noonu waaw chef de protocole baa ngi nii kii xàmme ngeen ko bu baax si euh, mbiri Ousmane Sonko xam ngeen ni moom la ñu moom mooy Jibi Gueye Ndiaye moom la xale yi xaañoon mi ngi noonu Jibi Gueye Ndiaye romb na Jibi Gueye Ndiaye bu la rombee rek xamal ni Sonko a ñëw waaw ndax moom mooy chef de chef protocole Sonko grand mbooloo mi bari na trop trop mais Sonko sax moom si boppam xawoon nañ ko di buux ndax sécurité bi sax xale yi dañoo mujjee bari hmm. bëgg song daanaka ci mbégte Ousmane Sonko loo gisee mbir waaw xam ne rek lii ah, day waaye ne mbégte bu nekk ah, ci kii ah, ci xale yi ci Sonko moo tax mu génn instant yi nii euh, fii yëpp dafa xat nit ñi bari nañ macha allah ba ñu ko doon ñëw tee yi quoi loolu lañu gis daal daanaka daanaka nañu wax ni naxar bi bi xaw na wàññeeku bu baax a baax euh, bu ñu sukkandikoo ci papam ndax nee na Sénégal yëpp ñoom ñoo ko jëloo xale bi ndax boo gisee Bougane ñëw na fi fan yi la passé démb euh, ki nga xamante moom mooy Seydi Jamil tamit ñëw na fi tey nga xamante ne Ousmane Sonko moom moo fi ñëw yaa ba nga ne yaa ngi ci kan maa ngi Sonko bu baax ko tuumaal ko lu mu ah neex na ni fi ñëwee moom naqar la waaye fi ne mbaa neex la ndax naqar boo ko bokkee rek day daal di seddu guy Sonko daal yàlla na jël réew mi te bu mel ni ki fi toog nag. <laughs> alors mi ngi noonu ah ñu jox leen ah, mi ngi noonu ah maa àndoon ak sama ñu ñëwoon fii nga xamante ni moom mooy yëmbal euh, di leen jox rendez-vous ndax Ousmane moo fi ñëwoon dinañ leen ko toppal euh, fépp foo xamante ni dem na fa ñu jéem a doxantu bu dem fa pour dégtal ko euh, mbokk internet yi Abdou ngay tëjee waaw ok mi ngi noonu comme ni ko sama frère waxee Ousin comme nu mu ko waxee rek dañuy jéem a xool lépp loo xam ne mbokk internet yi askan ni bëgg nañ ko ci la ñuy dox chaque jour incha allah Ousin maa ngi lay jaajëfal kàddu yi rafet na macha allah jërëjëf merci